sëriñ saaliwu mbàkke sëriñ saaliwu mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1926 ci dëkk waajuram bi nag di kayal ci dëkk boobu nag la feeñe jamono ci atum 1926 1926 boobu nag moo dëppoo gaawu fukki fan ak juróom nag ci weeru tabaski ci atum 1344 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy samedi 26 juin 1926 muy doomu soxna Aminta Touré ak cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke moom sëriñ saaliwu mbàkke nag amul kenn nag ku mu bokkal nag soxna Aminta Touré ak cheikh Mamadou Moustapha Moustapha Mbacke benn bant la nag ci waajuram wu jigéen wii bu mu feeñee jamono nag ci dëkk boobu nag di Kayal ci atum 1926 waajuram nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Serigne Touba Cheikhul Khadim nag la ko yëgal nag ci njaareem Cheikhul Khadim nag bindu téere bind ca kaw téere ba nag saaliw ñu ñëw rek tudde ko nag Serigne Saaliw biñ koy wutal aw tur nag ci dëkk boobu nag di Kayal Serigne Touba Cheikhul Khadim nag mi maamam soxna Xari Penda Faal nag la yabaloon nag mu ñëw nag Kayal teewal ko nag mu boole koog nag ay bernde ngir soxna xari penda faal nag indaaleel ko cheikh mamadul moustapha mbàkke mu def ko nag ci xew wi soxna xari penda faal moomu ñëwaatoon na nag kayal jël si waat nag sëriñ saaliwu mbàkke mi yit ko nag sëriñ tuuba seexul xadim nag ci njaareem wax nañ na keroog nag bi mu ko indilee seexul xadim seexul xadim nag da koo laaj nag kii kan la mu di ko xamal nag saaliwu la nag moom cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ tuuba mbàkke nag na ko indil kii moom sama ko nag ñaanal ko ñu delloo ko nag kayal ci loxoy waajuram nag soxna aminta turé muy benn bant Aminta Touré soxna Aminta Touré itam nag ñeenti at itam nag la dund ak doomam ji di Serigne Saliou Mbacke mu daal génn àdduna nag ci njaareem ñu denc ko itam nag ci njaareem soxna Aminta Touré doomi ma xujja ummu Touré la nag bu lappee ma xujja ummu Touré nag bu lappee doomi soxna umma Jóob la soxna umma Jóob doomi Serigne ma Samba Dingiraaji Jóob la Serigne ma Samba Dingiraaji Jóob doomi Serigne ma Samba Faa Xujja Jóob la Serigne ma Samba Faa Xujja Jóob doomu Maxtaar Ndumbe Jóob la ba tey nag soxna Aminta Touré mi doomu soxna Assu Mbacke Jaxate la soxna Assu Mbacke Mbàkke Jaxate doomu baay xaali ma jaxate kala la soxna Aminta Touré mii nag meññ Sëriñ Saaliwu Mbàkke turandoo soxna Aminta Loo la mi meññ nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bi soxna Aminta Loo nag nekkee Touba la Sëriñ Touba nag jëloon nag Sëriñ ma xujja umma Touré mi jébbaloon ko nag soxna Aminta Loo nag ngir itam nag mu koy jàppale nag ci kër gi Sëriñ ma xujja umma Touré mi bi Sëriñ Touba Seexul Xaddim nag demee ci géej gi nag la génn àdduna doom ji mu fi bàyyi woon nag di soxna Aminta Touré la fayee nag ki ko Seexul Xaddim nag jébbaloon nag muy soxna Aminta moo tax ndax itam nag soxna Aminta Touré nag bi matee dem kër Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag dëkkoo ko am ci nag benn bant muy Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Mbacke nag waajuram wu góor mooy Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke doomu Serigne Touba Cheikhul Khadim la bi mu matee dal alxuraanul karima waajuram nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag moo ko dalal ginnaaw bi nag la ko jébbal na Serigne Ibrahima Dieng ci dëkk bu ñuy wax nag Daaru Rahman ñu gën koo xam nag ci Daaru Rahmanuk ma Madiba Sylla fa la jànge nag ba mokkal alxuraanul karim bind nag ab kaamilam lim ko nag waajuram nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke bi muy jàng nag ci loxoy sëriñ Ibrahima Jeng nag ci dëkk boobu nag di Daaru Raxmaan wax nañ ne nag sëriñ Saaliwu Mbàkke nag a ba ñu bari sax di ko kalaameeg Cheikh Modou Moustapha Mbàkke moo am bis nag mu ñëw ziyaare ci Cheikh Modou Moustapha Mbàkke Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nag di ko laaj nag Saaliwu nag fu sam njàng toll ginnaaw ba mu ko ko waxee nag la ko Cheikh Modou Moustapha nag di ko wax ne Saaliwu nag sa njàng mi nag yeex na sëriñ Saaliwu Mbàkke nag di ko wax ne liggéey bi ñuy liggéey nag ba pare nag doog a jàng nag mooy li ko waral ci la ko Cheikh Modou Moustapha nag boolee ku ñuy wax nag sëriñ Modou Diop akum machine di ko xamal ne daal soo demee lépp loo war a def nag na la ko Modou Diop mii nag di defal ci fas wi nag ak machine bi te yow nag nga wéel sam njàng mu mokkale alxuraan nag ci loxoy sëriñ Ibrahima Dieng ñibbisi nag bind ab kaamilam nag bu njëkk bi mu ñibbisee nag laataa muy jàng xam-xam Cheikh Modou Moustapha nag téye na ko tundoo di binduloowaat ko fa nag yeneen ñaari kaamil ginnaaw bu mu bindee kaamil yooyu nag ba noppi la ko Cheikh Modou Moustapha nag dalal xam la ko jébbal nag sëriñ Assane Bousso nag bu gédee mu jàngal nag Mouhamadou Dem bi muy nekk nag ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem nag bu njaareem ci la Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag génnee àdduna bi mu ñibbisee nag la dem gànnaar wéel am njàngam ñetti at nag la fa def ginnaaw gànnaar nag la dem nag Algérie ba ci atum 1951 nag mu ñibbisi nag yoonam nag wu njëkk bi mu ñibbisee nag bay delluwaat la ko magam nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma booleeg nag doomam ja sëriñ Mbacke soxna loo sëriñ Saliou Mbacke nag yóbbaale ko nag Algérie Algérie googu itam nag la xamante sëriñ Sam Mbaye nag ginnaaw bu ñu fa fekkantee Algérie magam nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag boole koog moom borom taayif nag dem itam nag jàngi fa bi ñu nekkee nag ci bato bi nag di dem alger sëriñ saaliyu mbàkke nag defoon na nag ci di ko ñaax nag ak itam nag di ko kañ bu eggee nag algérie mu njàng moom nga xam ne ne nag moo tax nag ñu yóbbu ko fa soo demee nag ci way yi nga xam ne nii nag sëriñ saaliyu mbàkke ambassadeur nag mi ko doon def nag ci doomam nag sëriñ mbàkke soxna loo mi ngi koy xamal ne soo demee nag na nga sax nag ci jàng xam-xam jàng xam-xam dajale bu nit ñi nag dee ndamoo ku amul xam-xam nag amul ndam na nga amit nag ay teggin tey toroxlu nag foo toll boole ci itam nag lawet bul tay yi mukk itam nag ci sàkku nag xam-xam saa su ne itam nag deel farlu rek ngir xam boo toogee itam nag ay boroomi xam-xam di leen jaayub juddu itam nag du fa jar di leen jaay daraja itam nag du fa jar lu dul xam-xam daal foofa amu fa place soo eggee nag na nga jàng nag tawxiita góor-góor lu ci na nga jàng fiq na nga na nga jàng mahaan na nga jàng mantaq na nga jàng na na nga tafsir nag alxuraanul karim teyit nag di ko jàng foo toll ci gàttal daal ndénkaane bu yaatoo yaatoo yaatu daal la doomu Cheikh Modou Moustapha Mbacke bii nag defoon nag ci doomu magam bii ci bi ko magam nag booleeg nag doomam ji ngir mu yóbbaale ko Algérie nag mu dem jàngi ñu teewlu nag way yi ko Serigne Saliou Mbacke ambassadeur nag defaloon ci bi ñuy dem nag ci biir bato bi man yattaqi rahmaana waxfas xuduudahu fa inna tuqaa axla wa anfasu madduxir wa dum taaliban lil ilmi fal ilmu gayru ma isajtamahu yowma alfaxaari bi xiftuxir wa dum xilfa aadaabin wala dim tawaaduan wa xilman fama xaadal muna qatru batar wala tani yowman an tilaabin fa innama bi qadri ijtihaadi almari yastaxlisu alwatar wa kun za stibaarin wa atina wa tajalludin wala taku yowman za kalaalin wa za dajar ida kunta fi naadi daw alcilmi fa alaman bi an laysa yugni anhu maalun wala nafar wala taku mimman in alammat xawiizatun yujibuuna anha bitanaxnuhi wannazar fa baadir ila cilmi alkalaami fawaajibun fa tabban liman laa yacrifu alsamca walbasar wala tansa ilma alfiqhi fa huwa ajalluha wa ilma alluqa laa tansa kay tafhama suwar wa ilma almaani fatluban huwa mantiqan fama raghani sul jahli bil aks wal xabar walasta tusaawi darratan aw xulamatan isaa lam tumayis bayna nasbin wa xarfi jar wa in kunta laa tadri alxadisa masaanidan wa mursalahu laa taxju annaka muctabar wa kun za ijtihaadin fi lusuli fala takun tura jahilan bil aami walqaasi wal amar wa fasir kitaab allahi walzam duruusahu wala tuhini taariqa walwasna wassiyar wala tajcalan hilma tasawufi innahu yutaxiru xalban min riyaain wa min kadar laa taxsha xayra allahi ayata saatin fa laysa li gayri illahi xawlun wala qadar wa saami aqan in dalla waafu karamatan fa man nadbu illa man afa xiina maxtadar wakun baasilan lilmaali in niltahu fala yanaalu lula man kafuhu yushbihu lxajar wakun bilcuhudi walmawaasiqa raaciyan fa laysa yasuudu ljiila man cahduhu xafar faqus haasihi yabni nasixata walidin shafiqin yadayka ashdud biha fahiya kaddurar aqarra bika allahu alkarimu uyunana wa nashaaka tuula dahri dahri min kulli ma yadur bi jaahi xadimi nuuri qudwatina radi wa maqdumihi almuxtaari xayri bani mudar alayhi min arrahmani doona nihayatin salaatun wa taslimun bi ashaabihi alquran Algérie googu nag la wéy nekk ba ci atum 1960 mu tàmbalee liggéey nag ci administration nag bu Sénégal mu nekkoon nag ku dégg français ku déggoon nag arabe ku daa waxitim nag anglais mu tàmbalee liggéey nag ci administration nag bu Sénégal ñu yóbbu ko nag ci réew mi nag di Maroc ca capitale ba nag di Rabat mu tàmbali faa nag liggéeyee mu nekk fa nag consulat nag ci am ambassade ba ci atum 1960 ba ci atum 1971 1971 ñu jële ko nag Maroc yóbbu ko nag Nouakchott ci réew mi nag di Mauritanie mu nekk fay tam nag consulat ci 1971 nag ba ci 1975 ñu yóbbu ko nag ci réew mi nag di Égypte ci dëkk bi nag di Caire mu nekk fa nag ci ba ci atum ñu jële ko foofu nag yóbbu ko nag Irak ci capitale ba nag di Bagdad ci nag ba ci atum doog koo jëlee foofu nag yóbbu ko nag ci réew mii nag du kawet def ko nag ambassadeur mu nekk fa nag ci atum 1983 ba ci atum 1988 réew moomu nag du kawet nag ba mu fa nekkee ñetti réew nag lañ ko booleel nag def ko fa nag ambassadeur muy réew moomu mu nekk nag du kawet réew mii nag di Liban ak réew mii nag di Bahreïn mu basé wu nag ci réew moomu nag du kawet réew moomu du kawet nag la jëlee retraite ñibbisiwaat nag ci réew mi mu nekk nag ku waajuram Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag bëggoon waajuram nag da koo ñeewantu woon soxna Aminta mooy nag mi teel a dem ñeenti at nag lañ fekkante nag ci kaw jamono taxoon na nag waajuram nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag bàyyi ko xel te ñeewantu ko nag lool mu nekk nag ku jaxasoo woon nag waajuram nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bëggoon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Serigne Fallou Mbacke itam nag bëggoon ko def na nag ay wayi wayi way nag jagleel ko nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke saa bu ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag daa gisitim dana ko wax itam nag saali lu beesati ndax nag ay way nag yum ko daa jagleel mu nekk nag ku bëggoon waajuram nag Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ba muy jàng jàng nag la soppoon cheikh mamadul basir mbàkke cheikh mamadul basir itam nag ni la ko bëgge woon ba sëriñ saaliyu mbàkke ambassadeur nag bi muy jébbulu ci cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool nag ci la jébbulu di ko roy itam nag ci ni muy doxee ñi ko xam bu baax nag wax nañ ne néegam nag benn foto nag moo fa nekkoon te photow cheikh mu basir mbàkke la tudde na nag sëriñam boobu cheikh mamadul basir mbàkke doom def na itam nag ay way jagleel ko nag doomu seexul xaadim bi soo delloo nag ci way yii mu defal nag cheikh mamadul basir mbàkke sama bànneex nag dàqu na li ma jiwoon lépp itam nag saxul loolu lépp nag li ko waral mooy namm nag gu ma namm nag sama soppe ba saa bu ma gisee nag ku ma ziyaare si wala ma gis nag ku war nag ab oto samay nelaw nag dafay naaw duutuma mën a lekk nag duutuma mën a naan duutuma mën a nelaw itam ndax sama xol nag dafay féqu ngir dem nag ci sama mbégteem xol mënatumaa xool kenn mënatumaa def dara ngir egsi gii nga xam ne nii nag sama xol nag da koy egsi nag ci man sama sang nag bu tedd bi nga xam ne nii nag mooy làquwaayu nag jirim yi mooy làquwaayu ñi nga xam ne itam nag amuñu dara sama sang boobu itam nag lañ dañuy daw làqu jirim bu amul bàyyi itam nag fa nga jëm mooy far nag mbooleem ñaaw yi mooy tasaare itam nag mbégte ki may wax nag du kenn nag ku dul cheikh mamadul basir mbàkke cheikh mamadul basir mbàkke moom nag ñi xam yàlla ñépp nag mooy nag seen imaam cheikh mamadul basir moom itam nag mooy sangub sang yi boroom xam-xam yépp itam nag buñ dajaloo itam nag mooy seen kilifa mooy ki gën a sàmm itam nag ndonal waajuram képp koo xam na ni itam daal bëgg ngaa yeesal diine faaw itam nag nga waxtaan tamit dañu xamal ci doomu soxna Fatima Dumaan Jóob bi ñu teewlu ko dayful xabibati haaja shawq wa zikra ilmaamihi wa nafa anni lati sukara qad baata yafril fala najwa fa ya ajaban inni ihtidaa'i wa akfar laylu wa atakara qad saara wa rakbu fi lbaydaa'i qad raqadu faqtada isdarani min nawmati sahra ma kuntu awalu sabun baata muktatiban mahmumu qalbin latifun min imami sara bayna uammilu minha alwaslasa faraxin isaa tawallat fala aynan wala asara bal la uammilu illa wasla sayidana ramiri wal aytaami wal fuqara أخرى ذاك البشير ذاك البشير إمام العارفين وفرد الأكرمين وقطب السادة الكبرى بقية السلف المرضي مشتدما من نهجهم قد عفا في الناس واندثرا أرام القلائق للعهد أصدقهم فقرا إذا افتخرا وسالم العرض من ضم ومن دنس والحائز الفوز بالعلياء والصفرا والسائم الصيف إرضاء لخالقه والقائم الليل دأبا يسرد الصورا والتاجر الكوم للأضياف إن نزلوا والواهب الجرد بالأرسان والبدرا ينسيك قصا إذا استنقد wa bihi tansa mata tantaqihi al bahra al matara mu nekk nag ku jaxasoo nag amoon na fi ay gane arab sëriñ Saliou ambassadeur itam la woowoon ngir mu dalal leen itam di leen nemmeeku sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké itam nag ko laaj xalaat way yii ko jagleel nag waajuram sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci xilaafa googu mu toog nag di toogaayu sëriñ Touba Cheikhul Xadima sëriñ Saliou nag defal na ko ci nag ay way di ko ci ñaax itam nag ak itam nag di ko ci kañ ci toogaayu sëriñ Touba Cheikh Abdoul ci xilaafa kaso gi ni mu rafeteeg nag ni mu taaroo ak mu yemalee nag murit yi Serigne Saliou ambassadeur nag mi ngi koy wax ne xilaafa gi nag mi ngi mel nag dañ koo décorer ko nag ay yére muy yére nag ci yow saa boo taxawee nag di na nag buur bi nag moo bu dul woon nag ngëm-ngëm nag bi ñu am te xam ne nag suñ boroom nag duutu yebal nag beneen yónent dañuy foog ne daal ab yónent nga nag bu ñu yónni yow mi nga xam ne nag yow yaay suñu sëriñ di suñu royukaay lenn dong nag lañ bëgg ci yow mooy nag nga sax fi bañ fee jógee nag ba faaw ñu teelu nag way yi nga xam ne nii nag sëriñ Saliou Mbacke ambassadeur moo ko defoon nag ci waajuram sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke di ko ñaanal nag ak a kañ ci nii mu yoree nag xilaaf ak nag waajuram sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag ñu teewlu ko inna al xilaafata laa turaa kuf'an wala tarda siwaaka isaamiyan wa asila jaatka tarfulu kal arusi bi dayiha tiiha fa kunta taaji wal iklila kidna nadunna is waqafta muxaatiban lawla al aqidatu qad bu'ista rasula mawlaaya cheikhu lxalifati dum lana inna bi ahdika la nuridu badila ahda taxaabu taxarrubi wa taasuri wal iqa kullun yuqabbilu ismatan taqbila dum lil ibadi wa lil biladi muassisan wa muayidan wa muwafiqan wa jalila abadan tashuudu bi kulli gaalin innama narju bi nafsika an takuna baxila dum fi riayati rabbuna la naftaji laka minhu illa an taisha tawila salla ala tahal amin wa sahbihi rabbun yukammilu qasdana takmila Sëriñ Tuuba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke itam ni la fonke woon nag doomu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bi Sëriñ Tuuba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke nag bi mu toogee xalifa général nag des mourides amoon na fi nag ay gane arab Serigne Saliou ambassadeur nag doomam la woolu woon nag ngir mu dalal leen nag toppatoo leen relation bu yaatoo yaatu nag la séqoo nag waajuróom nag Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke mu nekkit nag ku jaxasoo Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ba waajuróom nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke jébbaloon na ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag ci atum 1935 nag jàpp 1936 Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag moo mës a ñëw ci magam nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko laaj nag doomam ji nag kum ko tuddee Cheikh Modou Moustapha nag di ko xamal ne awma benn doom nag bu fu fekk nag sëriñ bu mag bi ma xam nag kuñ ko tuddee sëriñ bi rek laa koy yëgal mu joxee nag aw tur waaye man nag sama wàll nag tudde naa la ko teyit nag jox naa la ko taxoon na itam nag sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke itam nag fonkoon ko wax nañ ne nag bari na ay daara itam nag yu sëriñ Saliou sanc daana fa dem nag di fa fekki nag sëriñ mu nekkoon nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Tuubaa Cheikh Soin bu Mbacke saa bu masaa ñëw Tuubaa nag sëriñ Tuubaa Cheikh Soin bu Mbacke nag dana ko woolu di ko laaj nag ay laaj nag ci réew mi ak àdduna bi Mbàkke nag masaa tontu léeg-léeg nag waajuróom nag sëriñ Tuubaa Seex Sohaybu bu Mbàkke daana ko tooñu nag xanaa dara ump la jaxasoo googu ñu jaxasoo woon nag moog waajuróom nag sëriñ Tuubaa Seex Sohaybu bu Mbàkke sëriñ Tuubaa Seex Sohaybu bu Mbàkke itam nag faboon na doomam jox ko ko ngir doomu Seex Moodu Mustafaa Mbàkke bi nag dëkkoo ko mu nekk nag ku jaxasoo woon nag waajuróom nag Seex Murtadaa Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la bi mu génnee àdduna waajuróom nag Seex Murtadaa Mbàkke nag moo ko taxaw amoon na fi nag ab xayma boo xam ne nii nag xayma la nag bu yéemee yéemee ba ci kilifa yu bare bare bare nag nag woon nañ ñëwoon na kër sëriñ saaliw nag di seet si nag xayma ba bi ko cheikh mourtada mbàkke nag yëgee ba xayma bi nag yéem ko ñu ko yëgalee nag sëriñ saaliw mbàkke ambassadeur noonu nag la ko dindee nag jébbal ko nag cheikh mourtada mbàkke nag addiya moom itam nag ñi la joxasoo woon nag soxna maymunatu mbàkke buntu sëriñ tubaa seexul xadiima di soxna maymunatu mbàkke nag laylatul xadar ganeen njabootu seexul xadiim gi itam ni lañ fonke woon nag seen doom ji di sëriñ saaliwu mbàkke ibnu cheikh modou moustapha mbàkke mu nekk nag ku bëggoon magam nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma magam nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma itam nag soppoon ko ñoom ñaar nag ñu nekk nag ñu bëggante école arabe nag yi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag taxawaloon sëriñ Saliou Mbacke nag daana ci jàngale lu ëpp itam nag ci dunduk sëriñ Saliou Mbacke ginnaaw yàlla nag ci magam sëriñ Cheikh Gaynde Fatma nag la jaar moo eggale nag am njàngam moo koy itam nag yar tudde na magam nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doom tudde na waajuru nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doom muy soxna Fatma Diop ci gàttal daal ku tudd sëriñ Saliou nag teg ci ambassadeur Gaynde Fatma moo tax mu nekk nag ku jaxasoo woon ak sëriñ Mbàkke Madina di ko xoole nag Cheikh Modou Moustapha Mbàkke noonu nag ni la meloon ak magam Lo ba sëriñ Dan Khary Lo nag tudde na ko doom mu nekk nag ku ma du Alioune Mbàkke moom Cheikh Modou Moustapha Mbàkke sëriñ Alioune Mbàkke itam nag tudde na ko doom mu nekk nag ku jaxasoo woon ak magam nag sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi tuddewul nag magam nag sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi doom faboon na doomam nag soxna mooy mënatu Mbàkke bàyyeele ko nag sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ba soxna may Mbàkke moomu nag soxna may Ahma nag lañ njabootug Cheikh Modou Moustapha Mbacke Gueye itam kóllëre gu yaatoo yaatu nag la amoon ak ñoom moo xam nag sëriñ Xaadim Mbacke sëriñ Ibrahima Mbacke ab satu ba ci sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacke mii njaboot gu jigéenug Cheikh Modou Moustapha Mbacke gi ñoom ñëpp itam nag la jaxasooloon li ko dale nag ci soxna Mariamu Mbacke jaar ci soxna Xadi Mbacke Fatma soxna Maymunatu Mbacke tudde na sax soxna may mënatu Mbacke doom ci gàttal daal ngir bañ a nag di juum mbooleem njabootug Cheikh Modou Moustapha gu jigéen gi nag la jaxasooloon ndax Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag la leen doon nag sëriñ Mbacke soxna loo la sëriñ Mbacke soxna loo bi muy jàngi Algérie moom la ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde ma booleel sëriñ Mbacke soxna loo tudde na ko doom ngir nag ak kóllëre ku jaxasoo woon ak sëriñ Moustapha Absala nag bu daaru muxti sëriñ Cheikh Assou Faye itam nag ku jaxasoo woon ak moom la ak sëriñ Moustapha May ku amoon nag ak kóllëre la ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke ni la jaxasoo woon ak sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Soin bu Mbacke ak sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Soin bu Mbacke noonu nag ni la amee woon nag ak jaxasoo ma Massamba Mbacke la rawatina nag sëriñ Abdul Baaxe Mbacke ku jaxasoo woon ak sëriñ Muudu Roqaya Mbacke la moom sëriñ Muudu Maamun Mbacke nag bu Daaru Salaam ak sëriñ Abdul Xafoor Mbacke moom sëriñ Muudu Maamun Mbacke fekkante nañ nag ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem ku jaxasoo woon ak sëriñ Moustapha Mbacke Saaliw la ku jaxasoo woon ak El Hadji Jiili Mbay la El Hadji Jiili Mbay nag su masaa ñëw Touba kër sëriñ Saaliw ambassadeur nag lay dal ñoom ñaar nag ànd nañ nag la bokkoon nañ nekk nag Algérie foofu itam nag lañ xamante fasante itam sàmbay nag su masaa ñëw Touba itam nag kër Serigne Saliou ambassadeur itam nag lay nekk ku jaxasoo woon ak Serigne Abdoul Aziz Sy junior la ku jaxasoo woon ak Cheikh Tidiane Sy mbooleem tarixa yi nag dañoo fonkoon nag doomu Cheikh Modou Moustapha Mbacke bi liggéeyam nag ko xarañteem ci fépp foo xam ne ni daal jaar na fa ci consulat nag yi mu nekkoon ci réew yu wute wuutee nag ci réewu arab yi moo taxoon itam nag képp kilifa diine nag gu nekkoon nag ci réew mi xamoon nga nag liggéey yëpp Serigne Saliou Mbacke ambassadeur noonu itam nag ni nga ko fonke woon itam ci taxawaayam nag ak xam-xamam mu nekk nag ku jaxasoo woon ak sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou ni la meloon ak tamit nag ak alaaji Baara ku jaxasoo woon ak sëriñ Abdoul Aziz Baara la sëriñ Abdoul Aziz Baara tudde na ko doom ku jaxasoo woon ak sëriñ Amar Fall Mbacke la moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke sëriñ Amar Fall Mbacke itam nag tudde na ko doom sëriñ Xaadim Mbacke Awa Ba moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke itam nag tudde na ko doom sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Omar Mbacke woon ak njabootu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke Isaaxa Mbàkke ci gàttal daal nag waa Sénégal la doomu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bi nag jaxasooloon liggéeyam nag ak xarañteemam ak xam-xamam nag bu mu amee woon ak nag réew yu baree baree baree bari nag yu mu jaar ci ab liggéey tax na nag mbooleem nag tukkikat yi xamoon nañ bu baax a baax a baax nag njariñul nag sëriñ Saaliwu Mbàkke bi mu matee jël soxna nag lañ ko boolee doomu sëriñ Afiya Mbàkke ba muy soxna Faali Mbàkke bintu sëriñ Afiya Mbàkke ibnu Mamor Anta Sali Mbàkke mook soxna Faali Mbàkke nag ñaari bant nag lañ am muy sëriñ Cheikh faye nag magam nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ak sëriñ moustapha mbàkke di kim faye nag waajuram nag cheikh mamadul moustapha mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna ami njaay siidi doomu siidi albari njaay mook soxna ami nag benn bant nag lañ am muy soxna faatma mbàkke di kim faye nag waajuru sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma di soxna faatma jóob yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna binta saw di doomu sëriñ ahmadou sow ak soxna biso mbàkke moom sëriñ cheikh faati faal mbàkke moom maam cheikh ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mook soxna binta saw nag benn bant itam nag lañ am muy kim faye magam nag sëriñ Modou Baara Mbàkke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moom xaadim rasool yoraatoon na itam nag soxna suñu wax nag soxna maam xari Mbàkke di doomu sëriñ Touba Cheikh Soye bu Mbàkke moom xaadim rasool mook soxna maam xari Mbàkke itam nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag sëriñ Basiiru Mbàkke di kim nag waajuram nag Cheikh Mouhamadoul Basiiru Mbàkke ak soxna Maymunatu Mbàkke di kim faye nag rakkam soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke soxna yii nag la dëkkoo woon nag njaboot mu nekkoon nag ku am xam-xam di làkk nag làng nag yu wuutee li ko dale nag ci arab français ba ci anglais Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad moo sàkku itam nag ci moom mu ñibbisi waat nag ci ginnaaw nag ba mu nekkee nag ambassadeur ci réew moomu nag du ko wett état bu Sénégal nag bi fi newoon nag Abdou Diouf nangul woon nag loolu Serigne Saliou Mbacké dafa mujj nag anticiper ab retraitam daal di ñibbisi nag ci ndigalul waajuram nag Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci 1988 ab dëkkam nag mooy Daaru Salaam ci 1988 jàpp 1989 nag la ci jot ci ginnaaw nag bu mu ñibbisee nag ci dëkku waajuram bii nag di Touba doomu magam nag Serigne Mbacke soxna loo la laaj nag dëkk ba Serigne Mbacke soxna loo nag jox ko ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag moo ko goroon nag ci 1941 dëkk bi nag mu ngi ci wetu dëkk bi nag di dànq seen ak dëkk bii nag ñuy wax ndindi buggul Serigne Mbacke soxna loo nag moo ko jébbal mu dal nag am fa kër xëcc fa ndox def fa daara di fa yar nag ak itam nag di fa jàngale di fa sàmm itam nag ndonal waajuram nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ñu takkoo takkoo takku nag fekk nañ ko ko fa lu takkoo takku itam nag def na ko fa dëkk ba itam nag dënn gëni mu ngi ci loxoy nag njabootam muy seenub dëkk nag mu nekk nag ku fonkoon nag xam-xam ba saa nag daana ñaax itam nag boroom xam-xam yi ñuy way nag ak itam nag di bind ñetti way yi nag mi ngi ko jagleel nag mbooleem waykat nag yi nekk nag ci réew mi boo delloo nag ci ñetti way yi mi ngi wax nag yéen waykat yi Sénégal yi est-ce que way ngeen nag lu bees seen marché bi nag wéet na seen xur na seeni xel nag moo lëndëm wala nag seen saytaana nag yi leen di jay ba ngeen a way nag ñoo daw war ngeen nag tey day rafetal nag seeni arap ñu teewlu nag way yu Serigne Saliou Mbacke ambassadeur nag defoon ci mboolem bindkat nag yi nekk nag ci réew mi ku jaxasoo nag Serigne Moustapha Mbacke Saliou la daba al biladi hal min jaridin aw waju suuxa innaha fi jumudi nadaban minkum alqaraihu am qad fadat shayatinukum liwadin baidi innaha sayhatun ila kulli qaxin min aqi giratin fa hal min rududi ku fonkoon itim nag doomu aadama la ba saa bu masaa gis doomu aadama itim dana ko laaj nag a njàngam masaa togg nag di joxe la lépp lu masaa yor itam nag da koy joxe lépp loo xam ne daal day jëmale nag kanam yoonu maamam wii itam nag ma ngi ca woon ci ay xalaat nag ak nag ay pexe ngir yoonu murit nag jëm nag kanam bi magam nag sëriñ Alioune Mbacke nag toogee xalifa Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Saliou Mbacke ambassadeur nag la féetale woon kàddug màggalug daarul xuddoos gi tax na nag sëriñ bi itam nag moo daa def nag discours yi lépp loo xam ne itam nag moo ajo itam nag ci ku génn àdduna ci daarul xuddoosa sëriñ Saliou itam nag lañ ko féetale woon ak yenn xew-xew yi nga xam ne daal moo daa amitim nag ci daarul xuddoos kàddu yii nag ñu leen di waaj a dégtal ci màggalug daarul xuddoos nag 1994 nag la ko yëkkati woon ci cérémonie officielle ba ñu teewlu ko am na saaba bu wax oxbatu mu amirin dikk na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na may def ba mucc mu ne ko denc naa la soo làmmiñ deel jooy waxtu wu nekk ci li def ci lu bon loolu moo di lan moo di yonte bi day tere ne day bañ kenn ku ne ànd ak saw làmb yi rek ndi mberet mberet yi fu sa bànneex jëm nga jëme ko fa fu sa mer wala sa bégte jëm nga jëme ko ba ngay seet dëgg di ko wax am na bu ñu wax ma asim ñu jabalin laaj na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma jënn jëf loo xam ne su ma ko defee ma dem ajjana loo xam ne dana ma solitam sawara mu ne ko yaa ngi laaj lu wéeree waaye lu yomb la ci koo xam ne ki yàlla yombal na ko ko dangay ngay jaamu yàlla bu baax te doo bokkaale ak moom da taxawal waxtu yu juróom di natt asaka di war ramadan di aji màkk soo ko mënee daal ne ko teema laa wax sax bunti yi bunti yiw yi mu ne ko ajja mu ne ko la boo xam ne dalay fegal day fay def lu bon day fay bakkaar nii nga xam ne nii la dox di fayee sawara julli ci lii itam dëkk ba ñëpp tëgg nga jóg kabar di julli loolu itam mandarga bi ju mbaax ji la daal di jàng laay jikko suñu borom diglee daal ne ko teema laa wax li nga xam ne moo boole loolu lépp nga xam ne mooy bopp mbir mbir mi di dégg gannaawam di jegeenu affaire bi mu ne ko ah kay wax ma ko lu mu mu ne ko al jihaad fi sabilillah jihaad mooy teg sa bopp lu ne loo xam ne lii luy jëriñ lislaam la luy yëkkati lislaam la luy jëriñ bi dee fii la teg ko sa bakkan te kenn forcé wu lañ ñi ngi génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëral ci hôpital nag principal nag bu ndakaaru ginnaaw nag bu mu fa tëddee nag juróom benn fan doomu Cheikh Modou Moustapha Mbacke bi nag mi ngi génn àdduna ci bésub gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru maamu koor ci atum nag ci gàddaay gi gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci maamu koor ci atum 1417 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy samedi 9 novembre 1996 samedi 9 novembre 1996 ci hôpital nag principal nag bu diggante vingt et une heures nag jàpp vingt-deux heures ñu jëlee ko nag ndakaaru indi ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci xilaaf ak magam nag sëriñ Aliou Mbàkke ak it nag ci xilaaf ak waajuróom nag sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke itam nag moo sàkku ci rakkam nag Cheikh Mourtada Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul mu jullee nag doomu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bi mu denc ko nag ci wetu waajuróom nag Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ab xalifaam nag mooy sëriñ Cheikh Mbàkke Sikaap moo fi toog nag ci atum 1996 nag ba nëgëni ñi koy kanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu séqal nag sëriñ Saliou Mbacke ambassadeur sëriñ Saliou Mbacke ambassadeur nag amul nag ab bis nag ci luñ tudd nag ak màggal waaye bis bii nag ñuy fàttaliku nag waajuram wa di màggaluk daarul xuddoosa bis boobu itam nag la ak njabootam jàpp di ko ci fàttaliku waale ñi ñaan ca doomu Cheikh Modou Moustapha Mbacke ba sëtub lappe ba yàlla ñu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe mi itam nag na ko suñ borom saafara ci darajey alxuraanul